asalaamaaleykum wa rahmatullah chers collègues monsieur le ministre chers collègues de la presse maa ngi leen di nuyu monsieur le président article cinquante et un bi mooy bëgg wax la ca tënku nag mooy wàllum ay député ak réglement intérieur dafa am kayit boo xam ne moo ñu boole tubaab bi di ko wax réglement intérieur kër gi bu dee ci réew mi nag di cartum réew mi ci boppam ndey luwaay di constitution bi tënk ñu waaye fii am na lu ñu tënk article cinquante et bi nag li mu wax dafa leer dafa ne aucun député ne peut être poursuivi recherché arrêté détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions te loolu article 61 alinéa 2 constitution bi di ndeyu luwaay da ko wax mu ne waat le député est couvert par par l'immunité à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats de l'élection législative par le Conseil yemu ca nee na waat encore la poursuite d'un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l'Assemblée le requiert yemu ca article 52 monsieur le président nee na il est pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de onze membres nommés selon la procédure prévue par l'article 34 li ma bëgg a wax fii nag mooy dafa am lu tolloog ñeent ci ay député yoo xam ne yéen seeni naataango lañu seeni naataango yéen ñi fi toog yépp guddi fii ma toog di wax ak yéen ñu ngi leen téye muy kan Serigne Cheikh Thioro vous me laissez terminer ah vous me laissez vous déglu ma non man ngay déglu non s'il vous plaît s'il vous man maay wax ak yow. waaw non non attends waaw non déglul déglul déglul continuer dam déglul li ngay non déglul li ngay wax. dama ne. non déglul waroo génn ci débat bi. waroo génnuma ci débat. waaw no na leer rek voilà allez-y. gis nga bu la ay nit joxe cër da leen di delloo cër yi gis nga fii ma taxaw nii man Ahmed Aidara bu ñu fi doon ne fukki at du ma fi wax loo xam ne nit ñi dañ ma ko xeebee ci mbedd mi. def naa fukki at ak juróom ci rajo musuma wax lu ñu naan Ahmed mii ndeke nii lañ ko yare bu comprenez lu ma la wax nag dafa leer. yéen ñii nga xam ne yéen sax yéen a bokk benn bokk yaakaar war a yéen a war a njëkk a bañ ñu jël seeni i naataango yoo xam ne jàppuñu leen ci flagrant délit ñoom baakat yi seen biir oto lañ leen fekk jàpp leen. soo leen yéen normalement waroo leen a nangu sax ñu jàpp seeni i collègue député mais comme que Macky Sall moom tàmmal na nit ñi kaso tàmmal na nit ñi jàpp tàmmal nit ñi ay nervi tàmmal nit ñi yëfu wëyu loolu moom moo tax ngeen toog fii di d' ci ay seen naataango yu ñu jàpp yéen nan lañ mën a jàppee seen i collègue ba ngeen di d' accord ngeen toog fi naan da ngeen di waxtaan boo woy benn ñaar mais nan ngeen mën a nangoo seeni collègue ñu jàpp leen ba pare ngeen toog fi ngeen ne da da ngeen di waxtaan yen yéen a war a njëkk a bañ yéen nag yéen a takk nag càq bi nguur gi yéen a ko yor jàmm ñaar a koy dox nañ leen waxante dëgg ñun xam nañ fuñ bokk bu baax duñ taal réew ñi ma bokkal koñ ñu bokk bennoo bokk yaakaar ni ngi nii toog ay de saw jaawara mi ngi nii toog moom xam na ni man bokkuma ci ñoo xam ne dañuy taalub réew jaq càq bi nag yéen a ko takk yéen a war a def seen kéemtalaay kàttan ba jàmm dellu si ci réew mi mais yéen daa mel ni yéen bëggoo leen jàmm ah dama ne monsieur nii li ma ci wax am yi barki démb boo njaay ngeen ko jël di ko jàpp mais jàpp ay député loolu fu mu am député boo xam ne yow defoo pourtant yéen jàppal nañ leen fi ab député boo xam ni ba cëgu nar kam la fi def lu ne wéngi wéngaaral du ma sax tudd turam parce que comme que moom dafa nekk suñu ginnaaw ngeen ba ko li ñu bëgg nag monsieur le président mooy lan li nga promettre ñi nga doon waxal sànq na nga def nañu bàyyi député yi ñu ño fekk suñu fii ñu continuer fii amul darai loo xam ne dañ koy xeexee ministre bi toog parce que. merci merci voilà non non merci beaucoup merci mais non non non je peux pas parler avec vous ici vous vous retournez et vous demandez la parole mais lui je peux lui moi j'avais le j'avais la possibilité Mais laissez, je vais, mais retourner. Je vais vous répondre publiquement. Je vais vous répondre.